alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din asalaamu aleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di jottali am nuyoo ci seen kilifa ga alxaaji Fallou Galass la di ñaan sun borom defal ko tawféex ak taysiir waaye nag di leen delloo njukkal te di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a koy saytu. waaw xasida yi de wax dëgg sama diggante ak ñoom mën naa ni xalaaqa bu yàgg la maanaam lu yàgg la ci xam naa ni mën naa ni ci jamonoy daara ji la te kuy xam ku ne xam ni Ah, comme li daar yi baaxoo moo xam daar yi nga xamante ni ñoo nekk biir Touba wala faneen maanaam liñ baaxoo mooy jàng alquran ak xam-xam waaye ku ne xam na ni bu fekkee daara yi Sëriñ Saaliw moom mën nañ ñi dafa dafa boole yooyu yëpp maanaam kaat yëpp ndax boo fa nekkee di ngay jàng alquran di ngay jàng xam-xam di ngay liggéey waaye tamit di nga jàng xasida te ni ngay jàngee alquran di ko tari di ko mokkal noonu ngay jàngee xaside aussi di ko tari di ko mokkal mu mel ni dangay ngay am sëriñub daara waaye tamit dangay am maanaam jëwrin boo xamante ni moom moo lay jàngal xasida maanaam yooyu yëpp da ko ci am léegi bis yi nga xamante ni daanaka doo ko jàng alxuraan mooy lu ci mel ni ah, mercredi ak jeudi ak vendredi mooy àllarba alxamis ajuma yooyu da ngay jàng xasida di ko tari ñu la ciy sonal di la ci dóor nga koy tari di ko mokkal comme ni ngay jàngee alxuraan di ko tari di ko mokkal guddi gi nga dem taxaw kuréel ko te doo ko xool mën naa ni xëy na ca jamono ya ma fay nekk ci laa mokkale woon xasida yu bari waaw maa xasida gi ma njëkk a mokkal moom la ñuy wax inna ni wastu bil ilaa ilmuhiini min jamiil adaa wa kulli lahini zaarifan xiimati li rabbi taala raajiyan sax yahu bi maa xil ma hiini xasida googu falaa ko njëkk a mokkale falaa mokkale xasida ak waxaani afi sunqa wajjaxtu waj xiiliman takrimahu baana busra lana qad ataana aljuudu wal karamu saana ilaahi bil munaajihati jawatu bil fulxaani rabbiyal muhi bari na bari na ainsi de suite yu baree baree bari bi ma ñibbisee nag ba nekk sama kër baay mel na ni Mm, teewul daan naa ko daan naa ko daan naa ko rajo santu ci kër gi ndax bu guddi masaana jot daan naa taxaw sax jékki-jékki rek samp diir bi nga xamante ni jóge naa daara ji nekk sama kër baay waaye ginnaaw bi sama baay yóbbuwaat na ma ci baneen daara bu ma fay wéyalee samam njàng ab internat la daara yi siñ laxat siñ abdul ahat mu seex Suhaybu foofu nekkoon suñ seex say yoroon ma fa daan fa wéyal samam njàng ba ma fay nekk sëñ bi dafa départagé woon daara ji maam daf ko partagé woon nag ba du moins nga xam ni euh, am na yeneen mbàkki mbàkki yu ma fa bokkaloon nekk mel na ni waxtu waxtu waxtu julli juróom yi bu ma jot maa ngi fa nekkoon Cheikh Moustapha ak sëñ Mourtada moom sëñ Abdoul Ahad ak Cheikh Basir bu euh, tisbaar ma saan a jot sëñ Mourtada day noddu sëñ Moustapha gee mais gee yu maa ko daan li xam sëñ Basiru moo daan euh, moo daan moo daan moo daan noddu timis gi mais téewul ginnaaw timis bu masaana jot da daf may taxawloo taxaw ma ma ma ma ma jàng xasida may rajas busra busra la naa boo sax jamono yooyu dama daan taxaw ba sax am na ñu ma daan tooñ naan ma sëñ Murtada busra ma ko daan jàng eeru sëñ Siise loolu xëy na ba léegi moom a topp ba mujj ci école yi aussi aussi dama daf maa topp ci ci ci école yi ndax bi may nekk ci école yi Mbàkke Mbàkke 4 am na ñu naan ko annexe lycée xam naa sax di ngeen ko xam jamono yo ma fay nekk ah, mbooleem lu fa nekkoon ci daayra ak kuréelu xasida ya fa amoon ak alxuraan yooyu yëpp ci sama ci sama loxo la ne woon maa ko jiite woon ànd ak ñoom ci durus meeg ak yu ni mel loolu nag xëy na ba léegi daf maa daf maa daf maa topp waaw xëy na sax nag moom ah, li may toog di ko durusantu bëriwut waaye xam nga loo mokkal moom xëy na sax da ngay toog di ko jàng ci sam xel waaye yi nga xam ne xëy na mokkuluma ko wala ma miin ko xëy na loolu lay ëpp lu may durus lu ci mel ni wakkaana xaqan moom du ma tàggoog moom ci di ko durus waxtu waxtu wu may jullee dinaa ko jàng dinaa ko tari sama xel dinaa ko mokkal loolu nag xëy na ba léegi nag moo ma moo ma topp waaw secret yi nekk ci biir xasida yi ah loolu de xanaa weesuwul li li sëriñ bi naan ah, waj xaal tawaari fii bil yi junnata kulli xaariqin maanaam ah, di ñaan yow yow sama borom defal ci barkeb salallaahu alayhi wa sallam yonent bi nga def képp koo xamante ni day jàng sama xaside yi maanaam muy njariñ ci moom maanaam maanaam junnata kulli xaariqin maanaam di ko di ko buukale ci safaan ba mooy annaari ca ca ci safaan bi li ci làqu nag ci ay secret ki njariñ bari na loolu loolu loolu ndax li ko waral mooy sëriñ bi Euh, bi mu bindee xasida yi daf ko daf ko sànni ci jaww ji ñu ànd ak malaayika yi di sàbbaal sunu borom yii benn bu ci nekk ak la ngay jañ maanaam la ngay ñoddi bokkul waaye daal li ci ëpp solo moom mooy ñoom ñëpp yem bu ci nekk njariñi képp kepp képp la maanaam nee na buy euh, tagg yonent bi sunu borom daf koy lemal euh, basangu gaa yu baax yi waaw kon xasida yi li ci nekk ci barke ndax boroomam ci boppam lim ci daj moo tax am na ci yoo xamante ni daf lay tarbiya di la tarqiya am na ci yoo xamante ni day xëcc soxol jëmale ko ci jëmale ko ci ci ci ci ci ci sunu borom waaw ay njariñ yi képp la daal waaw loolu daal moom bëgg naa ngeen xam ko waaye nag képp koo xamante ni nag bëgg naa xam bëgg ngaa xam njariñ li maanaam da ngay taqoo ak làpp ak la maanaam boo demee bëri bëriwaan na koo xamante ni xëy na mi ngi ñor di dara ci xasida yi Euh, xëy na la muy la muy sàkku sax gisagu ko amaan na amin ga amin ga moo moo moo moo jaarul yoon xam nga ab néeg boo ci bëggee dugg da ngay ñëw tijji bu fekkee nag bëgg ngaa dugg dugg gi yomb la da ngay ñëw sa caabi nga tijji mais bu fekkee nag danga ngaa am caabi bëgg a ñëw dajji bunt bi xam nga loolu day xaw a compliqué xasida yi tamit noonu la demee leen daal xam naa ko ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci taqoo ak akuk sell la ak ak laab di ko jàng te koy seetantal loolu moom loo ci woo Euh, sunu borom dina la ko may ndax xasida yi moom wax dëgg yàlla barke yi képp la euh, njariñi kase la aussi ah, ah wakkaana xaqan de xasida la goo xamante ni sëriñ bi mi ngi ko mi ngi ko bindee ci wurusu wakkaana xaqan alayna nasrul muminin maanaam ci wurus woowu la ko binde mu nekk xasida goo xam ne nag sëñ bi mi ngi ko binde woon gànnaar euh, ndax ci gànnaar naari gànnaar yi dañoo booba dañoo dañoo teel tolloon ci ak njàqare maanaam ak bekkoor waaye nag ak tumuraanke gu metti dikkal leen am na ku ñuy wax Muhammadu Abdullahi ibnu Ayyi kooku moo daan euh, naafileel sëriñ bi moom dafa tudd dafa dafa dafa tëdd ba guddi daal di gént euh, sëriñ bi bind wakaana xaqan ci boppam sëñ bi bind wakkaana moom moom moom moom Mouhamadou Abdullahi ibnu Hayy moom léegi bi mu ko géntee dafa ñëw ci naari mu xamal mu xamal leen ni leen de bu ñu demee ci sëriñ bii de gëm naa ni dina leen fajal seen njàqare maanaam coono yi ngeen di dund dina leen ko fajal ñu daal ànd ak moom dem ci sëriñ bi wax ko jàmmat ko seen soxla sëriñ bi ni ñokket daal di dugg ci biir bi muy génn dafa indaale xasida gi indaale wakaana waaw ñii ni sax ah, ah, avant ñoom ñuy ñëw la ko bindoon ñii bi mu ñëwee ci diggante bi la ko bind ndax mbindu mu tooy xépp la nga xamante ni booba lañ tàqale kooku mbooleem coona waaye mbooleem tum tumranke bu nekkoon ci ñoom rek keroog wakaana dindi na ko ba mu jeex tàkk mu nekk xasida goo xamante ni tamit ah, sëriñ bi dafa wax ni maanaam euh, bi àdduna sosoo léegi maanaam koor yi nga xamante ni mas naa am te doomu aadama di ko woor di ci di ci di ci di ci di ci sàkk aw yow li ko dalee ci euh, gaa yu baax ya ba nit ñu mujj yi mbooleem koor guñ mas woor rek di ci wut yaaba nee na sunu borom fayee na ko ci fa maanaam lim lim ko fay ci wakkaana xaqan maanaam wecci na loola mooy naajaytukal yow ma waa xablal yow mi wala yi jaxalta vitra faw xasaw mi maanaam mbooleem woor yuñ mas a woor li ko dalee ca gaa yu baax ya ba ci ñun ñu mujj ñi mbooleem luñ mas a woor rek li ko sëñ bi fayee ci wakkaana moom wecc na loolu mu nekk xasida xam nag comme li nga wax sànq njabootu sëriñ bi fonkoon nañ ko loolu fonkoon nañ ko loolu ndax sëñ Saaliw sax daan na wax naan wakkaanam moom ku koy jàng nga xam ko ak nga ñàkk koo xam sëriñ bi sédd na la ci boppam moom sëriñ Saliou moom daan na ko wax. sëriñ bi aussi waxal na boppam sax daan ni ah, képp koo xamante ni gannaaw waxtu gee jàng nga ko ñett yoon te ànd ak laab comme ni ma leen ko doon waxee akuk seel la maanaam mbooleem ah, soxla soo am moo xam problème la ak lu mënti doon soo ko jàngee ñett yoon balaa bis baa dellusiwaat da nga tàggoog problème boobu noonu loolu sëriñ bi moo ko wax ak boppam. mu ni nag ku ko jàng nag ah, maanaam di nga am warsagu addina wa ak àllaaxira gee ñu jëm mun na ala xaari isil xuruufi mi ma yafuuxu danna mi maxruufi maanaam nee na képp kuy ah, jàng wakkaana daal dinga nga am warsagu addina ak àllaaxira waaye tamit mu ne li mu wax ci bayit boobu noonu mu ne ah, daanaka yow mi koy jàng maanaam yéen a jang ci am maanaam yéene jang ci am la koy sunu borom fayee sax muy ëpp maanaam dala ciy fay lu kawe lu kawe sa ñor te ku ne xam na ni sëriñ bi lim dund lim lim daj ci yoonu géej gi dafa metti te tar jànkoonteel na fa ak ay coono yu méttee méttee métti ba ah, lim dund ak tubaab yi tamit ci ci ndakaaru waaw xam ne sëñ bi daanaka digganteem ak digganteem ak tubaab yi ci ndakaaru loolu daanaka lees mënul expliquer la sax ndax metti ak targoom tar moom sax dem na ba ni bu koy fàtt bu koy fàttaliku ah, du bëgg du bëgg lu dut jël ngàndaay rek dal seen kaw moom tubaab bi sëñ bi loolu lay wax waaye moo tax mu ne axtaytani malxal ba anda kullama mënaa ne duri maxawta sulama waaye nag ah, sunu borom ah, mu ni barke boo kaana tax na sax mu fàtte mbooleem coono yooyu noonu moom sëñ bi nga xam ne sax nee na sëñ bi bi muy bi muy dem ci bi muy dem ci géej gi nee na suñu borom may na ma loo xamante ni képp ku aju ci man rek texe nga maanaam kulli murid bi yalu si yasaalu maanaam képp koo xamante ni aju nga ci man rek maanaam texe nga waaye mu mel ni nee na bi mu bindee wakkaana ba noppi sunu boroom subhaanahu wa taala dafa yebal euh, Seydina Jibril ne ko waxut waxul ku aju ci moom rek maanaam paa aju ci moom waaye képp koo xamante ni daal sa xol jublu na sëñ bi maanaam bëgg nga sëñ bi rek kooku texe ñel na ko moo tax mu naan xulubu jumlati lasina aflahu li tawajjahat wa rabbil muslim maanaam képp koo xamante ne yow sa xol bi daal ak toq bëgg am nga ko rek ci digganteeg sa sëriñ bi moo xam ngay murit nga aju ci moom moo xam nga ñàkk aju ci moom kooku texe ñel na la kon daal wax dëgg yàlla wakaana moom xasida la goo xamante nii moom wax dëgg yàlla li ci ne ci ci njariñ bari na bari na bari na loolu loolu loolu loolu waaw Sëñ Saaliw sax daana ci joxe ay lim waaw waaye daal jàpp ne xasida la goo xamante ni daal maanaam bépp ah, ah, soxla bu la fekk moo xam nu mën di toll xam naa ni dina ko saafara waaw kon boog nañ ko fonk bu baax a baax a baax waaye te xam ni daal fii réew mi toll nii ah, képp koo xamante ni daal bëggoo sa moroom maanaam maanaam bëgg bëgg nga sa morom ñeela rek ci teraanga ak ci lu mu mënti doon dee ko saxal waaw waaw moom waxkaana waaw soo lay kase laa ah, li ma leen di conseillé du li leen sëñ bi waxoon rek moom ndaw ñi waxoon ne yaa ayyuha sibiyaan laa tastaxilu anil huda boo di lu nistaxilu maanaam boo koy jàng boo koy jàng nii ci xëy na donga bi nga xam dafa ne ci daal di ko jàngi danaan wastaxilu bil xulóo bi lay wax waaye comme que da ngay liir yàq noonu xetti watti laa wattani bu ma jaali sa saxaar maanaam yéen ndaw ñi bu leen soxla lenn lu dul ak waaye lu jàng ak mokk waaye aussi tey watani ko jotaay yi waay yi waay dexe yi mooy jotaay yi nga xamante ni amul benn njëriñ ndax ki nga xamante ni moom xay na day sàkku xam-xam dafa war a toog ak ay roykat dafa war a toog ñoo xamante ni wala dafa toog war a toog ci jotaay boo xamante ni bu fa toogee dina am ak dolli ci xam-xam waaye bu fekkee da ngay ñoo xamante ni xëy na bokkoo jumukaay nga toog fa xëy na ba na koy jógee doo fi jëlee loo xamante ni dañ ko am ag yokkute ci xam-xam ndax bu fekkee da ngaa koo xam ne xëy na bokkoo leen foo leen jëm moom ca lam ne rek ci la lay ah, xëcc ndax di seetlu laa doon wax naan ñaar ñi bu ñu ànd di wut àdduna te nanguñu juboo am na ku ci bëgg na xamal ñaar ñi bu ñu ànd yàlla te nanguñu am na ku ci ku ci wut yàlla kon booy toog da ngay toog xamante ni da nga ko ndax ki ngay toogal amaan na mën naa dem ba di la génn ci la nga nekk te mooy dëkk di la génn ci li nga nekk te mooy dëkk nangam bii ak laa li ngay sàkku nangam ak nangam baaxul dama wuti xaalis wala leneen moo tax sëriñ bi doon wax sax ca maariful biiram wa man nahaakum ani taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantahi maanaam képp koo xamante ni mi ngi lay tere saako xam-xam maanaam mi ngi dox sa diggante xam-xam rek saako xam-xam kooku daf lay dugal ci biir kon ndaw ñi nga xam ne daal dañoo toll ci jàng nañ farlu ci njub te xam ni kat fi réew mi toll ah, jàng mënut a ñàkk ndax adduna day dox te buy dox da ngay ànd moom ndax dina dem nag ba toll foo xamante ni. daanaka dañuy soxla borom xam-xam fi ñu sax soxla nañ ko waaye dem ba tollu foo xamante ni ah maanaam day soxla borom xam lool kon ndaw ñi ah, buñ ci lenn boo tollee ci waxtu sàkku xam-xam jàng boo tollee ci nag ndax ak nit ki étape bi nga toll da koy weesu ndax bu fekkee da nga cee toll bi jiwoo ko dem ba ba nekk mag bu ko defee a ah, man na laa man na laa indi ay ay jafe-jafe moo tax sax xam na benn écrivain bu naan l'homme doit travailler le matin de sa sax ndaw da ngay nag doo am lenn lenn loo ci réccu waaw moo taxoon sax mu naan taxallumul xilm taxallumul xilma li wajhillahi dunal munafasati wa tabaay kon sëñ bi bu demee naan dem leen ngeen sàpp li xam-xam ngir jëm yàlla te bu leen boole ak upayo kon nag war nañu góorgóorlu te dox nag ah jëm sàkku gi nag dafa metti jàng dafa metti dafa ànd ay ay ay ay ay coono te it sëriñ bi sax doon la wax naan xam-xam dafa nekk loo xamante ni da nga koy jox sa lépp maanaam ku xam lépp ko xam koo xamante ni nag da koy jox sa lépp mu lay jox tuuteem ah kon kooku mën ngaa yokk ak góorgóorlu bu baax a baax baax moo tax mu naan fal xel mu ah, laa yoxtika xatta toxtiyoo ah, ah, kulla kon kooku xam-xam dafa nekk loo xamante ni da koy jox sa lépp mu daal lay jox tuuteem kon daal war nañ ci góorgóorlu bi nga xam ni moo fi jariñ bi ci topp tamit dafa nekk loo xamante ni boo koy sàmm. di nga di nga jànganteeg ay métit am maanaam di nga rafle di nga xiib di nga mar di nga tumranke maanaam sàkk xam-xam moo di waaye nag bu dee da bëgg da ngay sàkk barke da ngay da ngay ak ak barke koy mën moo tax sëñ bi doon wax naan mi nga xamante ni da ngay xam-xam. bul feeñal lor bul feeñal lor mooy ah, ci biir sàkku gi maanaam di nga rafle comme li ma leen doon wax sànq waaye bul rafle boo raflee bul wane ni yow da ngaa rafle bul ni damaa rafle moo tax ma jàng bul ni damaa mar moo tax du ma jàng bul ni damaa xiif moo tax duma ma jàng mu ne bul damaa damaa mooy jàmbat daal waaw bañ a jàmbat. Hmm. loolu ànd ak mais nag loolu képp koo gis mu koy def rek jàppale am xam-xam hmm. moo taxoon mu doon wax naan kon kaati man li dur bi waaye tamit ah, ki nga xamante ni tamit day sàkku xam-xam bu mu bëril am jàmbat maanaam bu bu mu ah, am njàmbat c'est sax lor la waaye bu mu ak njàmbat. te lor la maanaam bul feeñal lor mooy li ma jëkkoon wax mais fii bul bëri ak njàmbat la lay wax ak mooy comme yi ma leen doon wax sànq rek ay dama mar ma naan yooyu nangam nangam comme rawatina euh, fi jamono toll su ma ñëwee ci mbokki élèves yi voilà étude euh, wala professeurs yi maanaam seen xel dara du ci nekk lu loolu lépp ay xeeti njàmbat wala yow nga ni sëñ bi sax nee na coono la ngay jàngonteel ci biir mooy métti gi ngay jàngonteel ci biir maanaam na feeñ ci biir waaye bum mu feeñ ci kaw ku la gis kat daal ne ah yow de wax dëgg yàlla moom yaa ngi ci sa jàmm waaye fekk la ngay daj ci biir sax ñoom xamuñ sëñ bi ne kuy sàkk xam-xam maanaam melo yooyu noonu la war a am moo tax ma laa tukk si sakk waa fa xum mu te jallitan xatta tatuna naas am na ko ndax xam-xam moom kenn du ko fooyee ci ñëpp mu daal ni tamit ah, ki nga xamante ni tamit ah, day sàkku xam-xam bu bëggee xam-xam ba muy sàkku daal di bàkkee na muñ a muñ xam-xam boo ko bëggee am da ngay muñ ndax fi joni boo xoolee fi jamono toll gone yi ñu ci bëri na wuñu muñ maanaam njàngum dëgg lañuy jàng dangay gis koo xamante ni day jàng jàng ba sonn waaye du xam dara fekk lam laaj ci coono ci muñ ci jaayante daf ko joxe nam ko waaye moo tax mu ni ah, moo tax mu ni fal xelmu ah, noonu mu ni daawim xalaa dar seen xanu ni mu taale noonu fal xelmu laa laa yox may yax saa tawaa ba rabbuna xabdan sukuran maanaam sabur maanaam da ngay nangoo nekk ab sabur mooy ab muñkat bu mag bu nekk da ngay nangoo nekk ab ab ab muñkat waaye tamit nga nangoo nekk koo xamante ni da am ab jotte maanaam sob di nafar nafar mooy réviser moo xam donga bi ne ci daara ji moo xam élève bi moo xam leneen ndax ku dul réviser kat loo jàng di ko fàtte moo tax say nafar loo romb di ko xoolaat waaye nag am ab sobu di anticiper. maanaam li ñëwagut nga ciy soog di ko xam moo tax mu ne daawi maa laa yaa way xakkim sin li tawaa yeta jam jam yaa way tawaa yeta jam jam waaye nii nga war a mel dangaa war di dangaa di nafar waaye nag di jéem a xool li nga xamante ni exergo ci ngir teel koo xam moo tax mu ne yaa way xakkim sin li tawaa yeta jam jam waaye acam ki nga xamante ni day day day day day toog lànk bañ a jàngi wala muy euh, feeñal ak tuum rànke ñu naan ko lu tax mu naan damaa xiif sëñ bi ne la acam kooku moo tax ak xiifa ak yooyu yëpp da koy nangoo muy mu mel ni sax dañ koo laaj ne ko ki nga xam ni day sàkku xam-xam nuuru ci xam-xam bi rek kooku fan lay jëlee wërsëg bu muy mën a dundalee ko sëriñ bi tontu ko ko ah laa tastahil bi risqi is rabbul wara mutakaffilun risqal lasi yatahallam maanaam ki nga xamante ni nag mooy sàkku xam-xam soxlawut wër wërsëgu adduna wu muy dundalee boppam ndax kii sàkku xam-xam sunu boram moo ko yoral wërsëgal nee na nee na sax daanaka fonk fonk fonk fonk suñu borom fonk kuy kuy sàkku xam-xam tax buy dox malaaka yi dañ koy dañ koy lalal mbooleem li nga xamante ni dañuy dund ci biir géej moo xam ay jën yooyu noonu dañ koy ñaanal loolu moom loolu moom leer na soxla woo fii bu mu soxla woo ma bu ndax jàng jàng àndut wuti dara dafa fiir bu fekkee da ngay jàng bu ko booleeg leneen te sa xam-xam bu ko booleeg waaye nag mu ne ki nga xamante ni tamit da ngay jàng bu fekkee bëgg ngaa da ngay nag a da ngay ragal yàlla waaye nag tasaamu diineel ji waxsal ilaa li ki nga xamante ni day sàkku xam-xam day nangoo ragal yàlla waaye nag tasaamu diineel ji te te wataliku mooy bu bëree kon kaa di képp la xamante ni day sàkku xam-xam mën nga cee yow kese si. cee am na sax ba maxaarif moom wax dëgg yàlla bu am solo la waaye comme man si bi da koo jagleel ndongo li nga xamante ni day day day te bëriwul sax. te bëriwul. Hmm. bëriwul noonu waaye njëriñ bi ak dafa bëri solo ba nga xamante ni koo xamante ni ubbi nga ko ko hmm. yaakaar naa ni sa digganteeg euh, dox jëm ci xam-xam moom doo ci am benn njàqare doo ci am benn benn benn gàllankoor. caa caa caa moom ah, dafa demoon ci benn sénégal bu ko daan jàngal li ko man bi damay fàtteel damay gaaw a mu ne ko ah, da ngay watandi ko mooy lu bari kon kii saako xam-xam buy mooy lu bari rek loolu ah ànd ah, kon ki nga xamante ni day saako xam la watandi ko mooy lu bari ndax day dox diggante rek sax nañ ko xam bu baax a baax waaye nag sëriñ bi mu ne kuy saako xam-xam day watandi ko lépp loo xamante ni Ah, mën naa dox si diggante ak xam-xam rawatina ci jamono ji ñu nekk sànq leeraloon naa jotaay mais jotaay yi bi ci gën a ñàkk solo mooy jotaayu jigéen waaw ndax jigéen ñi dañ lay xëcc di la ci alkane kon loolu ku ko moytu ah, mën ngaa ku boo ko moytu xam-xam faaw nga moytu leen nag naa koy kawaaxe ba wal xawaani waxtasi in tadunu minha mirradan laa tusla laa tusla waaw kon nañ leen di nañ leen di wote ko bu baax nañ saako ngir nañ saako gi nag na ànd ak pas-pas ànd ak te bañ koo teg ci benn intérêt ndax bu fekkee da nga koo saako am ko ba noppi bu ko yemale ci àdduna wala àdduna bi tax la nga di ko saako ëllëgee da nga ndax kat euh, bu fekkee bu fekkee bu fekkee bu fekkee li may soññee ndongo li nga xam ne moo ne ci daara ji kooku na góorgóorlu ci am waaye nag tey na yaa ngi dégg mm-hmm. te góorgóorlu digganteem ak boromam waaye tamit mu jël adduna bii nag bu euh, ko jaay moo bi daal ni euh, la tastarit la tastarit dunia bi oxraa yaa fata man baaxal nuural fi dunia ko sa yàlla maanaam bul jaay sa àdduna mukk jëndee ko sa àllaaxira bu fekkee da ko koo def rek bu ëllëgee da nga koy waaye nag bu fekkee ki nga xamante ni moom peut-être day sàkku àdduna ah dama koy conseil mooy moom àdduna jamiy sàkku lam cee am ndax xam-xamu àdduna dafa am xam-xam dafa yàqu kii da koy sàkk ngir àdduna kii da koy sàkk ngir ëllëg bu fekkee nasaraan ci àdduna la yam wax dëgg yàlla kooku noonu nag di ko sàkk na fexe ba mu sàkkin ko sàkki sàkkin bu barke yaa bu am barke waaye nag bu demee nag ba suñu borom defal ko ci ak mën ak tan mu ciy gestu ay moroomam loolu bokk na ci liy barkeel xam-xam waaye tamit bokk na ci li may nit ki xam-xam ndax sëñ bi dafa wax ni nit ki day dafa war a tawe ci xam-xam kon nag man daal maa ngi leen maa ngi maa ngi ñaaxaat ndaw yi ñu góorgóorlu dox jëm ci sàkku xam-xam ndax mooy seen njëriñ addina mooy seen ah sama kàddu gi xanaa rek di soññi sama mbokk daal bi dañu daal nga xam ne yaakaar lu dul moom te barkeem suñu lépp ndono li nga xamante ni moom la moom la ñu fi bàyyi mooy xasite yi dinañ ko wagal suñ kéem lay kàttan te bàyyi di ko jàng di di ko di ko di ko boole ay musique wala di ko fooyee wala di ko caax di ko caaxaane ndax lu for la ci moom daj na ci ne te bi koy bind kenn nit ku xool kon tey nag. bu lépp bu lépp génn ci feeñ tax ñu jàpp ne luñ war a caaxaane luñ war war a fooyal waaw te xam naa di leen di leen sant rek di liggéey bu rafet na solo ñaan suñu borom ah, dëgëral li ngeen di ci seen liggéey bi ñu defal leen ci lu kawe seen bopp. defal leen